leader boobu ñuy tuddee Ousmane Sonko dañ koy tudd bu baax a baax. boo feebaroon bay dee sax doo jàll lu tax mooy njiitu réew mi dafa war a dem man mii di wax ak yéen. wéy leen di abone ci suñu seen bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi. alhamdulillahi faaliqil isbaax ahmaduhu wa ashkuruhu wa atuubu ilayhi layla sabaax. خلق الشجر والجبال والدواب والرياح واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له العليم الفتاح واشهد ان محمدا عبده ورسوله خافض الجناح الداعي الى الاصلاح الامر بالصلاح صلى الله عليه ما تلالا نجم ولاح وما استهل مولود وصاح وعلى آله وأصحابه أهل التقى والكفاح والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الفلاح mbokki julli di ñu ngi sant yàlla suñu borom tabaraka wa taala di ko kañ di màggal yàlla di seede amul benn buur bu ñu a jaamu ci dëgg budul yàlla moom buur ku dul yàlla ak loo mën a méngoo lu mu rëy rëy doo buur te ku la xool démb balaa yàgg dana xam ne nekkoo woon buur ku la topp suba balaa yàgg dana xam ne doo buur kon nguur kenn rek moo ko yore muy borom bi tabaraka wa taala moo tax melokaanu nguur lépp dafa daje ci borom bi tabaraka wa taala ku dul yàlla daa am ci nguur yenn melo yu ñuy jël tappal la bés a ngi ñëw nga xam ne yoroo woon dara kon yàlla ñu ngi la koy seedeel di la màggal di la kañ di la bàkk te di ñaan nga nangul ñu suñu njaam di julli di sëlmal ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne lépp du jaam di jaamoo yàlla mu baax ci moom nga ko royee wépp yoon wu nit mën a jaar amee ci tedd nga ak texe tey ak ëllëg yaa ko amee ci roy yonentu yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam di ko ñaanal moom ak waa këram ak i sahaabam ak bépp jullit bu ko topp ca yoon wa yërmande yàlla ay màggam ak i leeram ak i muccam ba keroog bés penc yàlla nañ ci yàlla boole incha allahu tey suñu xutba dañ ko fas yéene ak ci ñaari tomb benn bi ab joxañ lay doon ci wàllu àtte ci lislaam réeréewu leen ni tey réew mii di senegaal ñu ngi toog di déglu lu aju ci wàllu àtte loo xam ni lu rëy la incha allah danañ ci ñëw ñaareel bi te mën na am moom lañuy mujje muy semaine bi amoon nañ fi ab gan mooy ki nga xam ne moo jiite réew mi yëpp di Sénégal du nag yoon wi moo njëkk ñëw na fi ñëwati fi danañ ñëw ca ñëwin ya ak lam ñu digoon tey continuer waat tey diggatuñu mbokki jullit yi atte ci lislaam yi gën a rëy yi ñu gën a fonk te gën koo màggal atte da cee bokk soo la neexee dang naan atte su yëwee ne aw askan yëwén na ndaxam bu dul lislaam atte su yëwee ne lépp yëwén na waaye atte su yëweenul su baaxul dara mënatu a baax loolu moo tax borom bi tabaraka wa taala ay yonentam la ko doon méng yaa daawud inna jacalnaaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabici alhawa ndax soo ko defee fa yudillaka an sabilillah inna alladina yadilluuna an sabilillah lahum aadaabun shadidun bima nasuu yowma alxisaab kan la yàlla di waxal fii ab yonent koo xam ne yàlla ko tànn def gépp ak mat ci moom ne ko moytul topp bànneexi nit ñi soo leen toppee daañ la wàcc daañ la sànk ma ne àtte ci lislaam suñ ko waxee ci làmmiñu arab wi luxatan mooy linguistiquement mooy alxukmu bayna naas àtte diggante nit ñi danañ koy wax ci làmmiñu arab wi ci xereñee mbir ak wéyal ko comme li borom bi tabaraka wa doon wax ne wa qadayna ila bani israil danañ koy wax itam jublu ci mbir moo xam ne sottal nañ ca pare nañ ca fa wakasahu muusa fa qada alayhi muusa ak waayam ja ba mu ko ooxee ut ndimbal ci moom mu ñëw ndeysaan di ko dimbale far sot dal di dóor waaja borom bi tabaaraka wa taala ni kooka dafa dal di faatu ndaxam maanaa googu du ñuy tax di yitteel trop waaye xaysiya bi nga xam ne moo ñuy gën a yitteel muy alxaysiyatul istilaahi muy convention technique bi nga xam ne moom la borom xam-xam yi jox baat boobu muy faslul xusumaati wa qatiil munaazaat kon attekat yi nañu yëg ne ñaar walla ñett wala mbooloo ak mbooloo suñ dajee suñ jotee ki nga xam ne moo war a déterminer dagg xuloo ba bàyyante ba merante ba ña ko war a def ñenn la mooy ñu ñuy tuddee ay juge kon loolu lu jar a bàyyi xel la boroom xam-xam yi dañuy wutee sax ci li ñuy tuddee ak ci ki ñuy tuddee alqaadi ak mufti ñoom ñaar mufti mooy borom xam-xam mi nga xam ne kaana mutadallian fi ilmi sharia borom xam-xam la bu méngoo bu peek wala lu bëri ci xam-xamu sharia ba méngoo di fatwa ñu koy laaj muy ubbee kooku moom ak attekat bi kan mu féetee kaw ñu ne ñoom ñaar ñëpp kowe nañ waaye mufti mi da nga koy laaj ci taxawaay mu tontu la àtteeb sharia yow mi laaj su la neexee nga jël su la neexee nga teg ca àll ba di nag moom bu xasee àtte jugement su pare procès verbal yi génn la mu àtte loolu day wéy loolu moo tax ab àttekat am doole ci société bu ñu dematee ci biir àttekat yi nga xam ne am na première instance ba mu jeex nga dem ci ëttu àttekaay bu gën a ko weeti ñu koy tuddee cour suprême suprême nga xam ne soo leen doon topp ba àgg fa moom moo ci féetee kaw ñooña warees na waxtaan ak ñoom ñu bàyyi xel fàttali leen seen diggante ak seen borom tabaraka wa waaye itam seen digganteeg askan wi nga xam ne tey ñu ngi leen di déglu te lu ñu àtte loola mën na wéy mën nañ àtte mu jur jàmbu kese waaye itam mën nañ àtte mu jur sofaanu kese yàlla nañu yàlla musal ci loolu réew yu bëree bëri ci Afrique gis nañ ñooña dogal ba ñu dogalee réew yi mujj nañ ci amee jafe-jafe yu rëy rëy benn ci réew mu tuddee saaxilul aaj ñu koy tuddee Côte d'Ivoire cheikhul islaam ibnu taymiya rahimahullahu taala day wax mu ne atte maqsuun mi min alqada mooy wusulul xuquuqi ila ahliha àq ji na dem ba ca seeni worom nañ leen ko jox lépp luy xuloo dafa war a jeex mu ne ñi am àq ñu jox leen ko soo leen ko joxee bu doon xëccoo wala coow jeex na ndax jox nga leen ko mu ne kon amal lu fi nekkoon la bàyyi ko fi la dooleel ko waaye itam jële fi loo xam ne waru fi woon a nekk amul doole te mooy neen kon yéen ñi nga xam ne yéen a war a méngoo atte ci mbirum leader boobu ñuy tuddee Ousmane Sonko dañ koy tudd bu baax a baax dëgg amul làq-làqal kenn ko moom mu yàlla alxaqu min rabbik waxoon nañ ko ay yoon yoon ñu ngi koy junjaat digganteem ak yoon lu ngeen ci mën a àtte lu dul dëgg askan duñu leen ko nangul te waxoon naa fii ñaari àjjuma ci ginnaaw ne lu ci amati dañuy mel ni rek ba xale yi rëbb bu génn danga naan janaxa ngóog bu benn ñëwati rek danga naan benn na ngóog kon lenn rek lañuy ñuy séentu ci yéen mooy li wajhillaahi na ngeen ñu àttil dëgg bu dëgg jubee insha allahu xool yëpp daañ ubbeeku ñu ngi leen di ñaanal yàlla foofu ngeen toog yàlla na ngeen fa àtti dëgg euh, bërëb bu ñu miin la ndax dem nañ fa demati fa bi ñu téye ki doon taxaw ci miin bar bi rahmatullahi alayhi bërëb bu ñu miin la bu ñu xam borom bi nag tabaraka wa taala nee na wa an ixkum baynahum bil qist inna allaha yuhibu almuqsitin yonentu yàlla muhammad lay joxoñ sallallahu alayhi wa sallam ne ko àtteel sooy àtte seen diggante ci màndu nanga nga yëg ne yàlla day wooy bëgg la wooy màndu ya wa man lam yaxkum bi ma anzala allahu yi ñett la loolu doonoon wan nañu ne ñun jullit ñi fu ñuy dund war nañ góorgóorlu ba lay taxaw suñu kanam dañu àtte nekk àtte bi lislaam amut lenn lu ko mën a dàq suñu réew mi su fekkoon ne ñi fi ëpp du ñuy jullit ñu ne waaw waaye réew mi ñu fi dëkkee ñëpp ay jullit lañ ñi nga xam ne ñoo fi méngoo ay ndomba tànk yëpp ay jullit lañ kon lan moo mën a tax ñu takkatoo dàq shariatullah indi fi alqawanin alwadaiya lan moo waral loolu loolu nag responsabilité la boo xam ne man mi wax génnu ci waaye itam yéen ñi may déglu di jàkkaarloog man génnu leen ci borom bi tabaraka wa taala nee na ko faxkum baynahum bi ma anzala allah sooy atte atteel seen diggante ci li yàlla wàcce wala tattabi ahwaahum amma jaaka min alxaq bul topp bànneex bàyyi dëgg gi yàlla indi mbokki julli di atte ci lislaam xàmmewul ku am ak ku amul xàmmewul ku jiite ak ku ñu jiite xàmmewul borom xam-xam ak jaahil lan la xam mooy dëggu borom bi tabaraka wa taala don ali ibn abi talib radiallahu taala anhu nekk na amirul ci kuufa am lanteeg benn nit boo xam ne du jullit juif la muy ab yahud cey su doon tey waaye Alioune fan la jëm ak waa ji mooy ci yoon devant justice bi ñu demee waa ji yegg si taxaw Alioune radiyallahu taala anhu yegg si waa ji tegal ko sées mu ne ko commencé nga jëng te atteegoo xeet wu mel nii njiit yu mel nii war nañ mën a am lu ñuy tuddee al isdihaar mën nañ am renaissance ak bonheur xeet yu am noonu mën nañ am équitable mën nañ am dal yaa ngi commencé jéng te atteegoo waaye tey ñépp ñaar ñu jotee ñu xam ne kii côté bii la far kii côté bii la far bala ngay dem ci yoon amatoo benn yaakaar mooy jàpp nga ne dëgg tey moom yére la yi ñuy jël di ko ñaw di ko solal ay nit soo rëyee sa yére dafa war a rëy soo tuutee sa yére daa war a tuuti ci àtteeb lislaam nag demul noonu borom bi tabaraka wa taala waxaat yonent bi sallallahu alayhi ci ne ko wa an ixkum baynahum bi ma anzala allahu wala tattabi ahwaahum waxdaruhum an yaftinuuka an baadi ma anzala allahu ilayk moytul ñu fitnaal la wàcc loola yoon nga bàyyi lenn li borom bi tabaraka wa taala wàcce te du lenn lu dul dëgg yonent yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mu ne tekat attekat bi màndu lay waxal attekat bi màndu ëllëg yowmal xiyaama buñ koy xisaab dana fa daj coono boo xam ne bala xisaab bi jeex dana wax ni yellante woon naag duma àtte diggante ñaar ci doomu tàndarma ñaari nit ci doomu tàndarma ci ki màndu ki mànduwul nag loolu moo tax ñu ne qudaatun ala shafiri jahannam am nay attekat yoo xam ni ñu ngay war a méngoo atte pour atte waaye ñu ngi ca buntu safara ey yow mi war atte bàyyil xel ne ci askan wi nga bokk sam njàng démb kenn fekkul la ci coono ba nga daj yow yaa ko doon toggoo amaan nag say waajur ak say mbokk njàng moomu moo tax ñu teg la ci fonction jox la fonction teg la ci sees bi nga toog nga war faa atte au di de population du Sénégal kon nang leen atte ci man nang leen atte ci dëgg soo ko deful wallahi bés a ngi ñëw danga nga xam ne sacrifié nga sa bopp doo cee may boo am sans sacrifié nga sa njaboot mbokki julli yi ñaata at ba tey dañ naan ñoom diw sàngamin bañ attee atte sàngam fekk màndu woon na waaye ñaata at dañ naan ñoom diw sàngamin bañ àttee àtte sàngam ndax àtte ba dafa jengoon ci askan wi lañ méngoolu rëy rëy ci askan wi ñu ngi leen di ñaanal yàlla yal na yàlla dafa leen hidaaya ba ngeen àtteel askan wi loo xam ne benn fitna du ci joge ker su àtte ba amee ku bëgg liggéey dangay dem liggéey waaye leneen lu ci xew nag dama naan du bette yàlla ñëwaat di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko faxkum bayna naasi bil xaq atteel ci diggante nit ñi ci dëgg wala tattabici alhawa fa yudillaka an sabilillah inna alladina yadilluuna an sabilillah lahum adabun shadidun bima nasu yowma alxisaab yonent yàlla muhammad lay waxal sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ni lu nit baax baax moo gën moo la gën gën sa baay sallallahu alayhi wa sallam la yàlla di waxal ne ko atte leen bul topp seen bànneex ndax su boobaa mën nañ laa wàcciloo yoonu borom bi tabaraka wa taala mbokki jullit yi ak maandu ma ne ci lislaam ak leneen lu dul lislaam askan yi dañ koo aajowoo benn kilifa daan na wax wax ji nag dañ koy askane borom xam-xam yu bëree bëri mooy inna allaha la yansuru dawlata al aadima dawlata al aadila walaw kaanat kaafira wala yansuru dawlata al zalima walaw kaanat muslima mbootaay du ñuy tuddee ak état suñu maandoo borom bi tabaaraka wa taala dig na leen ndimbal donte ay yéeféer lañ mu ne waaye suñu mànduwul nañ nekk jullit borom bi tabaaraka wa taala digul leen ay ndimbal ay loi am na fi ñun ñoo ko tëralal suñu bopp loi yoo xam ne ñun ñëpp xam nañ ko sans interprétation nañ fa jaar suñ fa jaaree lu ñu àtte incha allah askan wi daañu ko nangu. waaye nag buñ bëgg a indi nag ay tournéeg yooyu kenn du leen ko nangul te wallaahi suñ ko defee mu jig leen tey ëllëg du leen jik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku àtteewu nit tooñ leen fañ lay xaar ca siraat lay doon mooy jël nañ pont bi teg ko ci digg jahannam ñépp war a jaar wa in minkum illa waariduha kaana ala rabbika xatman maqdiya ni ñi war a jàll jàll mucc ñàkk jàll ci biir jahannam koo tooñoon ak lu mu métti metti ci yoon yi la lay xaar ci siraat loo ko mos a tooñ mu ne lii la nag ma ko delloo mbokki jullit yi bés boobu bu jara bàyyi xel la te wallaahi sées bu nit mos a toog di àtte walla bàyyil xel na am na ku ca toogoon wàcc benn wàcce na ko dugg na ci bàmmeel wala wàcce na ko retraité na yow ma fa toog bés a ngi ñëw danga ko wàcc ñu ngi leen di bàyyiloo xel loolu ngeen àtteel askan wi luwaa yi ñu rëdd teg ko ci màndu bañ a jéng jëm ndeyjoor bañ a jéng jëm càmmoñ li ñuy jeexale mooy ki nga xam ne moo jiite Sénégal di président de la République semaine bi dem na ci ay région waaye ñu tudd Kaolack bi nga xam ne ñun fi lañ nekk jaar na fi la ca jiitu danga koy xool ci ñaari anam benn bi dang naan ñëw gim fi ñëw baax na lool ci askan wi beneen bi nga ne jaruloon ko sonal na torop askan wi ñëw gim fi ñëw baax na lool mooy ñu dëkk Kaolack yépp constaté nañ lii ma bëgg a wax mooy Kaolack moom biir kawlax ba ba ngay génn Kaolack yépp amul fi woon yoon wu baax waaw wala di Kaolack yépp national bi moo xam gox bu mu mën a doon kawlax moom amuloon yoon wu baax yoon yépp a yàqu depuis ay at ay oto di ci jaar ay ambulance ay sapeur pompier ay nit di ci jaar ñoo xam ne dañoo feebar ay mag ay màgget yaakaar naa defaruñ yoon yi ñu ne waaj nañ mu ngi ñëw ñu ngiy defar yoon yàlla xam na ne man fi ma xamee ne mu ngi ñëw dama romb gis ñu commencé sotti béton bi di defar ma ne waaw lu xew ñu ne ah daa mel ni kat ki jiite réew mi dafee war a ñëw ma ne su dee ci côté boobu de alhamdulilah amaat na defaraat nañ ci fatt fattaat nañ ci yu baree bari waaye président ñu yëgal la ne bala ngay ñëw ni nga fekk Kawlax nii melu ko woon de daanaka amul benn yoon wu fi baaxoon moo xam boo duggee fa ngay duggee fa ngay génne ci biir dëkk bi yoon yoonu baax daanaka amu fi woon nañ la yëgal loolu ndax moom mbokk na ci li wax ne la lan mu ngi ko door a dégg yéen ñëpp déglu ngeen loolu mu ne mu ngi ko door a dégg bi ma ko déggee tuuti ma am lu ñu te al jalta qalbiya maanaam ki nga xam ni moo ëpp information ci réew mi moom la c'est la seule personne bi ëpp information ci réew bi mu ne lii maa ngi ko dóor a dégg ma ne ah kon nag dafa mel ni àdduna ngi bëgg a tukki waaye nag alhamdulilah comme dégg nga ko monsieur le président di yoon yooyu ñu la wax rek de waaye Kaolack yëpp la yoonu baax amul ba ngay ñëw itam gis nga ne pentiraat nañ yu bare bay defaraat nañ ko teera taaral nañ ko waaye sa ñëw gi la nettoyé nañ set na lool waaye sa ñëw gi la gis nga ca ña doon wax ak moom am na ci koo xam ne ba koy wax sax ne ko man damaa xamul waxin bi dañuy ñaawal ñun kaw la xaw ma làkk ay français yàgg mu ne sa la xaw ma la yoo et la nangam ma ne Kaolack fi mu ne nii lu ci bëree bëri ci ville ba nag laa wax waxuma suñ quartier ak ñun moom yu ci bëri set na waaye sa ñëw bee tax mu set beneen côté bi nga xam ne ma ne coono la sonal na askan wi lool ñi nga xam ne ñëpp dañ doon tukki ñiy feebar waroon a jaar ci yoon yi pour dem su war a ñëw kenn amatul accès ci yoon wi su war a dem kenn amatul accès ci yoon yi dañ leen di lekk comme ni ñuy legee ay bëyëki nag boo feebaroon bay dee sax doo jàll lu tax mooy njiitu réew mi dafa war a dem man mii di wax ak yéen sama njaboot tukki na war a ñibbisi ci bés boobu ñëw ba war a dugg ci Kaolack am na fa daanaka cinq heures de temps dama mujj woote ne ko ndax duma ma ñëw jël si leen mu ne ma jaru ko oto demul moto demul ma ne ko kon nag nañu toog xaar yàlla amaan na su demee dangeen ngeen mën a si ko ca amoon feebaru étouffement di fat wala nga yore asma foo jëm mën a sudee ci côté boobu joru ko woon ñaareel bi mooy liñ ci yàq ci alal président nga yëg ne ñi la teertu du askanu kawlax ñoo jóg ñëw teertul la seen bopp waaye ay nit la ñuy importé teg leen ci ay kaara ki biis jox leen ay tiset ñu ñëw di la tàcc loolu danga ko war a yëg suñ la ko yëgalul ñu ngi lay wor dafa bokk ci diggante ki ñu jiite ak ka mu jiite mooy nañ ko laajee biir ñun de fii lañ dëkk suñu daara ji kere li jaar fii ci oto kenn xamul nu mu may nag man importé li ma ci xamoon di mooy jël ay amaan na ñu baal ma ci waxin bi ay bëy ak ay yooyu di yóbbu ca marché ba waaye duwuloon nit monsieur le président bala ngay toog Sénégal soo daan ñëw Kawlax ak fudul Kawlax mbooloo mu bëree lay tàcc te duñ ci jox ñaari dërëm kenn waaw wala déet duñu jox kenn ñaari dërëm ndax yaakaar la woon yëg-yëg la woon askan wu la joxe woon nii një suñu demee ba soo bëgg ñëw faw ñu def ay effort lu dul jeex ngir mën a indi nit ñi ñu tertu la ñu tàccandu la ma ne loola am na lu muy wane dañuy jeexale mooy ba mu ñëwee ca conseil ministre décentralisé diggati na Kaolack yaakaar naa lu mu néew néew téeméeri milliards trois cent milliards man jàppoon naa ne cent milliards la la ko jiitu woon anam loola ba ñu koy dig ñu ngi tàkkamte ko jàppoon ne milliards yooyu suñ ko jooree Kaolack Jakarta mii xale yi sonn ndeysaan te dama jàpp ne bépp xale bu am lu dëgër lu mu jàpp dootul dawal Jakarta parce que Jakarta métier xale la bachelier yii nga xam ni la ñu ngi yore seeni bac gisuñ kenn ku leen informé amul fenn fu ñu dugg secteur formel informel bi du jeex milliards yooyu suñ ko fi jóoroon sooy ñëw waxuma askani waaye ragal naan imaam yu baree bari tubaarkaal la daañu jox seen seen jàkka yi gannaaw ñëw tertu si la anna milliards ya da koo joxe te yegg siwul wala boog milliards yooyu ñëwut kon su ñu demee ba ci li nga wax ay weer dese la fi moom moo ne du posé euh, troisième mandat du loolu noonu la demee du posé troisième candidat kon li ko fi dese bareetul muy teg ay procès deux mille vingt six loolu ndax amul lu muy wane borom bi nag tabaraka wa taala dañoo waxoon ne yaa ayuha alladina amanu awfu bil xuut arab day wax ne mu ne alxurru xurrun maalam yatakallam nit ki moom gor la feeg muy wax su xasee wax moom tubaarkàlla donte nag li ñuy tuddee mbirum politique moom ngir ga moom ñoom dafa mel ni digaate la ca benn kilifa doon xam mu ne digaate ki mu engagé mooy ki ko gëm yàlla ne yi na ngeen ko matal wa awfu bi matal su ngeen dalantee ak aw nit waxuma nit waaye askan wala tanqudul aymaan bu leen dalantewu nit signé ak ñoom accord daldi tourné ci ginnaaw dajji ko wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula bu ngeen joxanteeg nit kóllëre na ngeen ko matal ndax lu borom bi tabaraka wa taala di laaj la te yii ñu wax mën na am yu ndaw ndawaani la kon nag la féetee ko moom taxatul ñuy wax monsieur le président di la ko wax pour laay la biir lool ndax buñ sañoon nga mucc ñun ñëpp ñu mucc yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadis boo xam ne maqil ibnu yasaar al muzani moo ko nettali bi mu koy nettali feebar na tëdd ci lalu faatu ki mu koy nettali dane ko woon su fekkoon ne dune ne dama ko déggee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ma la ko nettali tegal ko ci ne ko su ma xamoon na itam feebar bi danaa ci jóg dundaat du ma la ko nettali waaye dem na ba ñàkk yaakaar te bañ naa dem yóbbuwaale xam-xam mu ne yonent yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam nee na man yastarcihi llah raciyatan yamuut yowma yamuut wa huwa gaachun li raciyatih illa xarama allahu alayhi aljanna xeetul islaam képp ku yàlla sàmmuloo dara dara keroog ba muy faatu fekk lañ ko sàmmuloo woon sàmm ko lu dul ne borom bi tabaaraka wa dana xaraamal ci moom safara yéenewuñ ko suñu bopp yéenewuñ ko benn jullit mu waxaat sallallahu alayhi wa ne képp ku méngoo mbirum jullit ñi te du sonn du defi effort ngir lam seqoon ak ñoom mu matal ko illaa lam yadxil maahumul janna lu dul ne ëllëg bu jullit ñuy dugg aljanna moom du dugg aljanna monsieur le président ñu ngi lay fàttali taxawaayu Omar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu al-Faaruq al-Azam faaruqu haadihi al-umma mu ngi ci madinatul munawwara madinatul rasul sallallahu alayhi wa sallam waxuma xalaat nit ñi de dépensé na foofu da daan tëdd ba guddi ñépp xam nañ ko jog di wër jullit ñi askan wi nan la ñuy tëddee ñiy xiif ak ñii mar ma ne dépensé woon na foofu mu ngi ci Madina di xalaat bax la muy am mberkeel ca daat boo xam ne dox naw ci yoon ba fakkatalu te fekk yoonoo ñu mënoon koo defaat te defaruñ ko mu ne bax la boobu yàlla dana ma laaj kon suñ pax yi ci dëkk bi nga génn dëkk bi yoon yi pax yooyu yëpp responsabilité la boo xam ne monsieur le président yow la ko yàlla gàll yow la ko yàlla di laaj ndax askan yëpp dañoo daje loolu itam moo tax ñu am droit interpeller ko wax ak moom su doon keneen suñ yoon nekkul ci moom amaan na amaan na waaye comme askan yëpp ñoo daje li ñu am yëpp ñu jël ko jox ko ba suy dox ci yoon dañ naan la wàccal waxuma sax wàccal waaye mbedd mu jëm ca yoon bi sax yow doo fa jaar kon nag responsabilité bu diis la bu rëy rëy ñu ngi lay ñaanal borom bi tabaraka wa weer yi la fi dese nga mën a dabaatal ba réussir lépp donte yombut yàlla nag ala kulli shay'in xadir waaye daal nga réussir woon defal senegal yi lañu bëgg comme nañ la tànnee woon loolu de moo gënal askan wi te jàpp nañ ne itam nag moo gënal yàlla ya des yépp ñu teg ko fële xam ne nag ñun ay jaam lañ te xam ne nag sées bi lu mu neex neex bés a ngi ñëw des ko wàcce rek mbaa mbaa ñu wàcce la wàcce ko nag ci anam gu rafet loolu lañ lay ñaanal insha allah ba ëllëg soo fi bàyyeekoowee askan wi bu ñu lay tudd di la ndamoo yéen a ngi seetlu ñoom diw sàngamin kuñ ci tudd rek dañ lay ndamoo loolu de boo ko amoon insha allahu sakk lay doon ci yow ak képp ko ànd ak yow ak askanu senegal lu dul lii nag ba pencum yàlla dañ lay tudd di la fàttale ko ci lan moo fi defoon lii moo waxoon lii yàlla ñu ngi lay ñaan suñu bokk yële ca Palestine yàlla na leen dimbale yàlla yàlla suñ bokk ci yàlla leen dimbale yàlla yàlla néew nañ doole lool waaye nag am lañ nañ am nañ la yow yàlla yaay boroom doole ji yàlla nag ñu doole yàlla ñi nga xam ne ñoo ñëw di jël ay bomb di ko sànni seen kaw yow yàlla yàlla na nga jël lu raw loolu sànni ko seen kaw yow yàlla pexe ma ñuy def yàlla na nekk seen alkande اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم دمر أعداءك أعداء الدين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi yaa